doyen il faut que nga nangu ñu bëri fi ñu toll nii dans la rue boo leen di laaj li tax ñu xaw a mere PDS bokk na ci seen candidat ñu tëj ko kaso xëy suba génne ko kaso dugal ko ci jet privé yóbbu ko Qatar loolu aussi c'était une première au Sénégal boobu ba léegi ñu naan ñu dina ñëw dina ñëw dina ñëw lan moo lié le PDS ak le pouvoir actuelle ba seen candidat ñu tëj ko kaso génne ko kaso nuitamment dugal ko ci jet privé avant loolu le procureur du Qatar était là loolu aussi moo leeru ci nopp nit ñi ak ci seenum xel loolu il faut que PDS leeral ñu il faut que mu leeral ñu non non mais je suis d'accord hein c'est c'est un débat c'est un débat que mais mais, mais le débat il est tranché xam nga on ne peut pas venir venir prendre quelqu'un l'amener en prison pendant quatre ans le faire sortir nga ne moom nañ ko laaj. quatre ans dama ne ah. quatre nga wax de. trois ans ou quatre ans je sais pas. trois ans ñaata ñaata la. mais en tout cas xam naa ne Karim def na fa au moins je sais pas bon parce que aujourd'hui aussi tu sais ah comme je dis mais loolu du débat bi le débat comment on a pu dans notre pays violer. permettez-moi l'adverbe, aussi violemment les libertés de gence C'est ça la question que les journalistes doivent se poser et c'est ça la question. La question c'est comment on peut judiciariser la politique. Voilà la question. bi ñu koy xeex kenn xeexul on a fait des marches on a eu cinquante et quelques personnes en prison on nous a laissé seuls dañu bàyyi ñun rek ñu xeex ñu ne bàyyi leen ko la justice fera son affaire ah dañuy defoo ne karaw yu du sëq pour ku nekk jaar chez le coiffeur quand même il faut qu'on soit sérieux les du pays il faut ku ñu waxtaane ko sans parti pris dama ne problème bi nekkul Karim lu tax ñu tëj ko kasaw lu tax ñu génne ko bu ñu lay génne sa kër doo ko yëg bi ñuy génne pourquoi génne wuñ ko ni ñu génne Khalifa pourquoi génne wuñ ko ni ñu génne Barthélémy Dias c'est parce que on savait au départ que emprisonnement wu Karim Wade c'était simplement à la fin qu'on débouche sur sa non-candidature en 2019 on le savait. ñi mu daal te xamuñu ko ñoom la seen bët sorewul ñun xamoon nañu ko on s'est battu comme on peut dans tous les tribunaux du monde et lan la ñu mën a ti Macky taxaw ne Karim di mu wàññoon tudd turam mu ne moom buggul amnistie xanaa ngonte bon nous ne sommes pas nekkuñu en deal bu ñu bëggoon deal dañuy wax bàyyi leen ñu amnistie ñu mais bëgguñu ko pour notre honneur. révision de procès ngeen bëgg. mais du sax ñun ñoo ko bëgg dañ ko laajal le droit international moo ko exiger du Sénégal waaw mais nag yéen ci lan ngeen nekk man ngeen seetaan mais nag bu ñu gaañee sax walla ñu rey ñu mais bàyyi leen ñu bu leen ñu jaale. mais bu leen ñu teg tort maintenant ka il dit ñoom ñu ne CREI yi baaxul li mu atte baaxul parce que amul double degré C ñu xëy seeyal ko waaw moo boobu la moo atte woon baaxul. Mhm. moo tax woon bu leen ñu wax leneen ñun dañuy jàpp ci suñu wax naa la ñun sunu nit ñi yare nit ñi juddoo nit ñu màggee dafa am trace ñun je voudrais président encore à Mamadou Albert Sy que non seulement contexte bi ñu juddoo. Afrique amul parti contexte bi ko Abdoulaye Wade déclaré c'est à Mogadiscio tous les chefs d'État africains ñu ngi woon foofu Senghor était pris au dépourvu dafa génn rek annoncé que à France Inter le relais était fait le monde international n'est pas aujourd'hui comme ce qu'il était parce qu'on n'a pas eu les WhatsApp et les photos mais c'est ça a éclaté tous les agences de de presse étrangères yëpp de yëpp jël ko loolu moo tax sengoor ne pouvait pas reculer mais bi mu ñëwee waa parti socialiste dañu am ñu dal ci kawam mais le jeu était fait pour Ablaye Wade Senghor gardien la daf ko dénkoon cartable am ne ko téyel ma bu ko soxlaatee dafay ñëw ko monsieur le président monsieur Senghor de su may cartable laa ko joxoon dama bëgg nga delloo ma ko dafa am moom fu muy dem mu jox ko ko mais bu ñëwee saaga ko pour kooku du ko jël bu ko saagaa day fay ku dóor ko tamit du ko jox amul njariñ conflit boo xam ne bi li ngay doo ko jot dem ci kaso amul njariñ kaso ko fa dem négocier. waaw hmm? ah, kaso waaw. ko fa dem négocier. ah oui oui kon Karim dafa négocier. waaw ah, mais kaso boo fa nekkee da ngay tey da ngay tey da fexe ñu la ci génne da ngay dox di dem di dellu si négocier te xam nga négocier négocier taxul ñàkk xaalis taxul nga négocier négocier mooy prix bi lii la ñun on a pris payer le prix fort le prix de la défense en droit devant tous les tribunaux li ñu fay ci xaalis da xam nga mu toll. li Macky Sall fay ci seen xaalis yéen da ngeen xam ñu mu toll. yéen lañ ko fay. noonu li mu fay ci xaalis ci ay avocat da xam ni mu toll. ah non pour wër le tour du ah, monde. Ah, xool les boole ci nag jot xaalis boo xam ne bi nee nañ jot nañ ko te gisuñu ko mujj gi léegi ñu ne lan non dañu juumoon loolu laa lay wax ne ne nit amul droit dugal situation Sénégal bi ñu ko dugal nii en 2012 plus lu tax ñu def loolu yëpp deuxième problème bi après Mogadiscio mais 76 ñun dañuy wax ne. ñu sax un front national mu ngi ci sur ay statut mu ngi fii front national rassembler les bon fils de pays pour ñu ko a dëkk bi en cas de difficulté ñu loolu mais pourquoi on ak Mokhtar Mbow c'est une très grande future africaine loolu Mamadou Sy Albert Abdoulaye Wade xam na ko parce que magam la pour ce qu'il représente pour l'Afrique et le monde et principalement pour l'UNESCO surtout que Abdoulaye dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom la Mactar Mbow choisiroon douze pour ñu waxtaanee comment construire un consensus pour la paix fukki nit ak ñaar yooyu Mactar Mbow choisiroon ñaari africain noir moo ci bokk gannaaw Mactar Mbow Brésil Sélassié ak Abdoulaye Wade donc ñun sur le problème du consensus politique 1980 da ci Abdoulaye Wade bind il faut un consensus politique dans les pays en voie de développement. d'accord waaw moo taxoon ñun li ñuy wax toog yéen saa yoo waxee lii wax leneen wax leneen réew man loo ko yor chaque jour nga dugal ko ci guuta ba pare ne da nga juum. loolu moo ñu indi à la situation de 2011 2012 et tout ce que nous avons combattu ñi combattoon yëpp fekk nañu Macky Sall léegi ñoom ñëpp ñoo contre Macky Sall moo tax lan mooy seen responsabilité moo tax ñun yoon bu ñuy jël suñu tànk di ko teg dafay nekk yoon bu ñu xam xam fi jëm. mu war a jur jàmm